mo ngi jóge ci serigne touba ci bopam mo wolu cheikh ibrahim fall fekk ñi sentu wéru koor wax nañ ni cheikh ibrahim fall and nak baye massa sàmm wax baye modou gey maro sëñ ndjay roqee di mami kee tok ak sëñ yaram bay ñëw wuy si sëñ tubaa sëñ dalal ko ak ñim andal ne ko ibra fall mu ne ko mbàkke mu ne ko damay ay gan yoy gan bëgg na nga togal len ay rêve wax nañ ne mu ne ko tàllal sa loxo mu ñaanal la mu tàllal loxo mu ñaanal ko dégg naa bi ñuy doxee ba jéggi raay bi ca kër seex génn kër gu mag di dugg kër seex tàngoor gi wàcc mu giif daal di laaj sëñ yaaram mbay yaaram mbay mu ne ko faal mu ne ko ku tedd lim doon wax jàppati nga ko mu ne ko ah kay faal jàpp nan ko de mu ne ko lu mu wax nee na day sént ay gan te yooyee gan la bëgg ko leen toggal ay reer mu ni doom xam ngeen lu sëñ bambay waxa ñu ah, faal njag mu ni sëñ dafay junj waaye ab junjam ku dul man ibra faal dégguloo sëñ Tuubaa de ay ndogu la may toggaloo waaye ndogu yi may toggaloo de mu jëm ci kër ma koy toggee sama kër gi mu jëm sama kër sëñ Bàmba gi ku ma ci jox lu tollook tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tàbbal la jëna kon origine u ndogu yi foofu la jógee ndogu nag ñoo ngi ko njëkk toggee ci kër ah, njaarim di Cheikh Ibra jógee Touba en ah, Thiès 1916 ñëw ñëw njaarim sëñ Touba woolu ko di ko toggaloo ay ndogu Cheikh Ibra di toggee ndogu yi kër Cheikh di ko yóbbu kër gu mag mu toll ci fukki bool ak ñaar akub suppeeram fa lañ tàmbalee doog liggéey bii dox nag ci nekkub Cheikh Ibra Fall ak nekkub Sëñ Touba ba Sëñ Touba mi nga xamee ne moo waraloon loolee mu jiitu dem ci àjjana yi sans borom yi Cheikh Ibra Fall ñëw yeesal liggéey bi sëñ Modou Moussa Mbacke diiru ñett at Cheikh Ibra faal jiitu dem àjjana sëñ mu Moussa Fall da jël ko noon lañ ko toppantee ba ci sëñ Abdou Sakkour Fall bi sëñ Abdou Sakkour demee ci àjjana yi gën a kawe nag yàlla dogal sëriñ Modou Aminta Fall mi njëkk toog ci setu Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridini ñëw jël ko togg ndogu lu ñaar fukki at ak benn ñaan sama borom dolli leeram te taas ci barkeem ki toog nag nga xamee ne moom la ñuy wax ci turam muy borom kër gi ñu tuddee ko Cheikh Ibra mu wuutu Cheikh Ibra mu jël liggéey bi waaye toogaayu sëñ Cheikh jëmb bi dafa mel ni ndogu sëñ Bamba yi sëñ bi defaat na ci li tubaab di wax rénovation yeesal na ci def ci loo xamee ni mel na ni kat wuute nag la jëkkoon. waaye la jëkkoon mooy dëgg a tax li mu judi dëgg sëñ bi def ci jéego joo xamee ne àdduna gépp yëpp teg ñu seen bët kumte ni ma la ko mën a waxee mooy fabuwaat def nañ ko ci bis bu njëkk bi ñu ne moom tey lañuy ñuy door a tàmbali kenn ku ci nekk li nga xamee ne moom nga doon def da koy yokk ba sa doole fa yem rek ñu daal di bàyyi bu kumte gi jàll ñu daal di jëlaat ba fukki fan ak juróom fukki fan ak benn ñu daal defaat kumte mooy fabuwaat mbooleem lañ daan def rek daan ko ku man fukkam da def fukk ku ñaar fukk da nga def ñaar fukk da ngay seen fintoon bu dul kumte ñaari oto moo fi jógee camion bi jëm Njaareem ak camion bi jëm Touba camion bi jëm Njaareem gis nga camion bi jëm Touba gis nga waaye bu dee kumte nag li fi taxaw ci biti dana ëpp juróomi bis mbaa juróom benn ah, juróomi camion ñu séddale leen ñi jëm Njaareem ñi jëm kumte bagage yi dana bari bari waaye woo xamee ni daanaka buñ fi dee dana jot ngir bagage yi bari waaye loolu pas-pasu Cheikh Ibrahima Fall ak euh, bëgg ak gëm sëñ tubaa gi ñu gëm sëñ tubaa xamuñu amuñu lu dul weer wi gëmuñu lu dul liggéeyal sëñ tubaa tax ma ci biir liggéeyu koor gi am na ci ñeenti fan yoo xamee ne daanaka mooy kumte boobaa dañuy yeesal kenn ku ne fabuwaat kilifa gi nga xamee ne tey jii ñi ko composé ndog yi mooy rakki sëriñ bi ak doomi sëriñ bi ak taalibe yi mag yi nga xamee ne seen maam ak sëriñ bi la woon ñooñee la ñu séddale liggéey bi def ko ay nangami cin ñooñee yor bu kumte jotee nag ñooñee ñooñ fi mu ñoy soñu wacc seen waakër ñen kenn ku nekk ya xam da ngay misu ya xam da ngay jënd ay carton kanat carton poisson wat def liggéey wo xamé ni sëñ bi xolam na ci sedd loolu bokku na ci lan moy sababu kumte waaw mu mel gis na ci euh, mbir mi niñ koy euh, defee manam fi ci kër gi ndax mo nak mo jitu té moy it euh, barap yo xamanteni sax fa lañuy duggal dugal yi bala mo dem di sel ak la nge go xamanteni dañ ko ci sentu ba si sax dañuy wax naan euh, tubéyu jàmbur sax du fa dugg maanaam si sell gi gis nañ ñu bëri ñuy roy waa kër maam Cheikh Ibrahima faal di toggi ndogu waaye léeg-léeg ñu boole si yoo xamante ni lu mel ni ay dóoruy ku rek ay summeekoog jëfandikoo yoo xamante ne xëy na miinu na ko si Baye Fall euh, loolu lan mooy lan mooy wuute gi wala ba xam. naa Aline laaj bi nga ma laaj laaj bu jara laaj la fii dafa am loo xamee ni moo fi xew. bu leen fàttali lépp Cheikh Ibra Fall ci kanamu sëñ Touba la ko defee woon te sëñ Touba nangu na léppam ba tax na lépp loo xamee ni yaa ngi koy gis njabootu Cheikh Ibra Fall gi di ko def ci kër gi nga xamee ni lii sëñ Cheikh jëmb doon tey Cheikh Ibra Fall ko junjoon damay yegg ci ba laaj bu bi ku ñuy wax kan laaj Cheikh ne ko Fall ba gis nu ñuy def mu ne ko Ibrahima mu ne ko Fall mu ne ko boo demee ba gis bu am ñal la bari na loo xamee ne nag léegi la xew waaye am na loo xamee ne daal ci kër Cheikh Ibra li dalee ci sëñ Modou Moustapha Fall ba ci sëñ Abdou Sakkour Fall sëñ Cheikh Fall Baye Góor ba ci sëñ Modou Aminata Fall ba ci sëñ Cheikh jëmb nii yooyee xewut fii ci kër gi nag. kon nag ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp di sant les bon volontés yi nga xamee ne ay jàmbaar leen Cheikh Ibra lañu gëm moom lañu yaakaar moom lañu dayloo nga xamé ni liggéey bi bu tambalé yow doto yek coono ndax sen pas-pas ak sen bëgg ak li leen Cheikh Ibra jaral ñu jël sen ñaq ak sen wërsëg ak sen doole di tabal sëriñ bi néna mo ngi ñaanal sëriñam bu baax bi yalla sama borom guddal fanam te defal ko wër di ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gépp sama borom defal leen fanu guddu gudd te ànd ak wér di ñaanal nak njabootu bopam gi bu dee njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi moy ay rakki bopam ay doomi bopam ak taalibe yi mag yi nga xamé ni ñom sen maam ak Cheikh Ibra Fall won sëriñ bi nee mo ngi leen di ñaanal ñom ñëpp kep kenn ku ne ya xam lo bëgg yàlla na la ko sama borom defal wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf la ilaha illallah Yàlla baal faal ci liggéey baa ngi nii duñ laa bëgg leeral liggéey bi rek ndax lii ngay gis lépp ci liggéey bi la toftaloo toftal yii nag leen la bëgg leeral rek ah ñu fas ko yéene nag ndax sëñ bii toog di sëñ Cheikh euh, Jëmb Fall nekkal fi maam Cheikh Ibrahima Fall moom day def na fi ñetti super yoo xam ni moo koy toggalu super yooyu nag ñett la soxna Ummi Fall nag moom moo ko jiite moom mooy jëwriñ ji moom nag def na ñetti superam yi mu daan def teg ci ñeenti booli xar teg ci ñaari keesi pomme teg ci ñaari keesi orange teg ci ñaari keesi banaana teg ci ñetti dàmbu mango teg ci ñetti keesi ananas benn keesi tàndarma benn keesu rani ñaari keesi boisson quench ñetti kartongu ndox ak benn kilo guro soxna Awa Diagne it moom it ci sëriñ bila la moom it def na ñaari boolam yi mu daan def ba noppi teg ci ñetti booli xar yu mu mis yi ñaari dàmbi mango Nyari kesi ananas ben kesi pom, ben kesi orange ben kesi banana ñe juróom-ñeenti kesi boisson al hawa al wahab ñetti kesi boisson canette ñetti kesi boisson quench grand model ñetti bouteille yu ndox yu mag yu 10 litres ñetti xaal ak benn kesi tandarma soxna sooda wadit, momit it ci momit bi la defar na ñaari bool ya mu daan def yaani boolam yi mu daan defar mu muy yor ñeenti bool la daan defar teg na ci nag gorosu kanet ak fukk ak ñaar ci sase ndox mu neex soxna faatu bint saar moom seen boolam yi mu daan defar teg ci juróomi keesi xar benn keesu pomme benn keesu màngo benn keesu banaana benn keesu orange wow, wow, Wow. Thank you. Thank you. fisa sax te wér ba li nga yéene seen liggéey seen bi lépp roof la carton biir bi te ba nga mën ko àggale waaw woyof gi nga woyof mu ñi nga nekkal taalibe gi nga lay taal moo gën a jaaxal gi nga bare waaye ni nga ko bëggee nag da ko amee noonu yi Mbàkke waaw kon nag ñaanal lu nag jërëjëf Mbàkke waaw waaw waaw waaw cant gam ñëw nee na daam ko ñëwoon Thiès nee na ba mu séenee daa tiit ndax daa fan daal kilifa gu toll nii lu law li war koo yëkkati waaw ah. waaw ah, xat waaye dana baax de dana baax de dana baax loolu de alhamdulilah jërëjëf Mbàkke jërëjëf mhm. waaw mhm. Mhm. Eh. Eh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي نيون لندي نيو نيو بسل تي باك بوتد بي دي كر سيدي سيدي مختار مكي خليفة الشيخ الخديم تي يونين اك تي جيفي ku màgg ku set ku sell di Cheikh Ibra di Serigne Cheikh Jëmb mu dikkati nam daan dikke ci teraanga yi nga xam moo jëm ci bis wala weeru wu màgg wii nii tey jii nag di bis bu njëkk bi ñu indi seeni euh, barkeelu seeni ndogu di ko jébbal Cheikhul Khadim nam ko daan defee muy di jëfin woo xamee ni jëfin wu mat la wu set la wu sell la waaye jëfin la woo xamee ni mu ngi jóge ci ku mat muy Cheikh Ibra waaye jëm ci ku gën a mat di Cheikhul Khadim mu teg liggéey bu am solo boobu ci ci lenn ci njaboot gi sëriñ Moustapha mi nga xamee ni ñu bari xàmmee ko xam ko itam ci tool bi euh, di jëwriñu ndogu ji ci fii ci kër euh, ci Touba ci kese Sidi Muxtaar Mbakke mu ñëw ànd koog mbooleem njaboot gi yëpp ñuy di rafetlu ñoom seen doxin seenub taxawaay seenub nekkiin seenu melokaan firndeel na leeral na jëmmal na ki nu yónni ndax euh, euh, ndab munta seeb lu dul la mu def ñoom ñii nag taxawaay bi melokaan yi nga xamee ni jikkoy démb ja ak bërki démb ja jooji mooy li feeñaat tey nga xam ne lépp Sëriñ Tuubaa da cee feeñ lépp Cheikh Ibra da cee feeñ muy di melokaan woo xam ne xañ na sax du kiimaan ndax ku bokk ci Seexul Xadiim ku bokk ci Cheikh Ibra mu amoon beneen melokaan dib safaan xañ na loolu mooy kiimaan ci ñun waaye jikko ju set ju sell ku baax doxiin wa nga xamee ne buy dox da nga xamee ni Cheikh Ibra ngi nii jëmi waxiin wa jëfiin wa melokaan wa nga xamee ni kooku mooy kiy jàngale ak taalibe loolu feeñ na ci sëriñ Cheikh jëmb waaye feeñ na itam ci njabootam gii loolu nag sëñ bi gis ko ba xam ko ba tax na saa bu nu ñëwee euh, da leen di jox seen gëdd jox leen seen wàccuwaay ndax day xam ni Cheikh Ibrahima moo ñëw dikk na fi mu war a ñëw di kërug boppam euh, loolu moo tax sëriñ bi euh, sàng dugg naa ca biir ànd ak sëriñ Moustapha ñu dem fekk sëriñ bi donte itam tab jëna ba mun munta génn waaye eh, bu Cheikh Ibra ñëwee rek soxla Cheikhul Khadim dara wërta dox diggante boobu ba tax na la muy xat-xat lépp kon mën na mën na ma wax ne Cheikh Ibra dem na gis na Cheikhul Khadim ci kaw suuf dem wax ak moom jottali ko ak hadiya yi nga xamee ni lenn la ci addi yi ñuy gis nii mu jébbal ko sëñ bi ca biir wax ay wax ak cant yu jóge ci sëriñ ba waaye sëriñ bi itam daal di koy tontu yónnee waat ay cant itam ci sëriñ ba euh, di waxin wax boo xamee ni euh, ñoom ñaar xañ ci saahir bu amee benn bis buñ gisewut ci saahir itam mën naa la wax ne la du ñu tàggoo ñoom ci batin saa sune ne ñi ngi gisante saa su ne la kenn ku nekk siq ak moroomam Cheikh Ibra li ko war ci Sëñ Tuubaa ak Sëñ Tuubaa itam li mu war a def ci Cheikh Ibra ñoom ñaar umbanti ci loolu ba loolu leeral na ko léegi digg naa loolu léegi ci kàddu yi nga xamee ni moom la sëriñ wax sëriñ Moustapha mii kon daal di wax ni weer la wu màgg weer la wu tedd boroom weer wi nag ñëw na ndax sëñ Bamba moo ko joxoon ndigal ci weer wii nii te nit nag bu fekkee da nga nite nit ak jëfam nit ak bisam nit ak soxlaam waroo ko ko xeebal ci lenn ko ko war a jàppal fonkal ko ko loolu moo tax nag sëriñ bi xam loolu fonkal ko loolu jàppal ko loolu itam won ne ko nag lii daal neex na ma jëfa nga ndigal itam yaa fi nekkal Cheikh Ibra waaye maa fi nekkal sëriñ Tuubaa itam tey kilifa yi ñoom ñëpp sant nañ bëgg nañ ndax jëfin wi ak melokaan wi ak doxin wi waaw kon daal loolu xaj na lañ mën a waxagun euh, ci tàmbali sëriñ bi daal sant na mi ngi leen di ñaanal gis na itam seen liggéey bi yépp nee na daal incha allah nam ko daan defe dana leen ko tegal ci loxol Cheikhul Khadim mi tax ngeen di jëf ànd ak itam di leen ñaanal suñu borom yokku fan wi yokku wërsëg wi ba ngeen gën a mën a liggéeyal Cheikhul Khadim ñaanal leen di akug yokku akug yegg ba du ngeen am benn ndog ci barkeb Cheikhul Khadim waaye ci barkeb Cheikh Ibra ñoo ngi sant nag di jégalu ci kàddu lépp luy lépp lu ci ab jamaj واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمه الله